li woor jar na ko <laughs> maa ngi naan koor gi méttiwul mais maa ngi bëgg a dee ay yàlla buñ sàkk lu yow yaa woor rek loo ci am na ko jël man ne damay woor yenn saa duma woor na yenn saa doo lan duma woor subhanallah yow mbër mi si kër gi sa suñu taaw bu góor gi moom kat day jël di togg ay mbaxal lu nekk su ma fekkee bool mbaxalam tege man lekk. sama dafa ñàkk a jom depuis 27000 yi ba léegi xamatuma si moom dara dara dara dara dara. bàyyam lu yem di ndax bàyyam. Eh, eh, eh, ma ciy def say parole de bàyyam. Ah. ma ciy def say parole. Oh, xamal loo wax si moom de xamal bu baax loo wax si moom. lu ma xam laa wax lu ma xamul lu ma ko wax. loo xam nga wax loo xamul nga yow moom boo reppee moom yow yaay dem si biti génn. génneel naa rakk ja ndax a ja. ndax sama jëkkër moo ma gënal lépp lu ma am. sa a moo ma la yow moo ma la a kay. moo ma la gënal. ah kan moo may jox kan kan moo may jox loo xam ne moo gën si man. yow da si man. Aida. la la ma la gënal. pire. dégg naa li nga wax. lii de sama loo de. si da ngay jooy ma topp la. déggoo ma ne sama jëkkër sama baat sa kaw déggoo lu ñu wax roy du nuyoo pire sa yaay mënu ma xaajo sa baay mënu ma xaajo jox yow mii toog mënoo ma kaa jox sama jëkkër moom ma ko a jox. taw na. kii borom lu may def yow boo ko xamoon yow boo xamoon li nga may def. Ah. yow boo xamoon li may def. Ah, koor gi tey yow mbaa booy booy on nii ngay def. yore coono rayagu la yow sa baay dañu la la rey ah. sa baay war naa ko si yàlla dañu la la rey nii. entraînement yi métti na. non entraînement yi méttagul sax dégg naa ay mbaxal ngay lekk. ah voilà yow yàlla moo indi sax kër gaa ngi ne amul dërëm dërëm dërëm dërëm dërëm dërëm dërëm dërëm dërëm sa avance bi anamu foo mu jéem ah. avance bi. ah avance bi vingt sept mille la. ah jox naa sama papa dix mille man laaj naa ko junne yi mu bañ. man démb faraatu naa ba am 3000 jox naa ko Papa Raja Papa Raja dem na dëkk ba jëlelil ma sama garab yi. Papa Raja ak dëkk ba te yëgu ma ko te tàgguwu ma. Ah. ay a ndeysaan notre daal daa baax ci kër. waaw kay comme que nee moo wala gënal bàyyi boo toogee yàllaay kasay du notre. waaw salaam la wax nii. ah dem na de ah pa pa papa la jox dem. ah papa papa papa nee na combat bi combat man du ko ma ne ko moom moo lekk ko bëree. ah ah ah ah jat dërul baax ma lay wax. promoteur bi mu ngi ñëw te yow xam nga ni fan yëpp entraîné woo man nag maa ngi dem de. promoteur. ah waaw. alhamdulilah rabbil alamin sama papa lekk dix mille moo koy bëree. ay man du ma ko bëree. wuy yaay ah, ah, ah. sama papa moo lekk dix mille. laa ilaaha illallaah. alhamdulilah sa papa de sa papa de du ko bëri. ربي لنا طول ريحة طلة رمضان